bon euh, d' abord une question donc lii nga wax ni. par rapport au la après après la ñu ci choix bi. Mhm. man tey jii bokk naa si ñoo xam ne dama jàpp ne Sénégal dafa war a liggéey comme si tey organisé 2027. lu tax ma wax loolu parce que gëm naa ne ñaanu moo yàlla mais gëm naa ne Ouganda Tanzanie ak euh, ki nga xam moom. Kenya Kenya du ñu organisé en 2027 du ñu pare. Mhm. du ñu dëkk football sax les de premiers pays du ñu dëkk football. Kenya première discipline sportive am athlétisme la. Ouais. Ouganda c'est la même chose. au moment benn stade lañ am mooy stade bi nga xam ne moom mooy nekk ta mooy nekk Ouganda yeneen yëpp c'est des stades moyenne envergure li nga wax tamit nag dégg rek moo neex yàlla loolu la c'est ça qui s'est passé parce que bu nekkul woon loolu Sénégal du forclos il faut qu'on remette les choses à leur place Sénégal dafa déclaré woon forclos par l'entregent xam-xamu Augustin Senghor wala dugg duggam moo demaat foofu ba laajaat ba ñu duggalaat après Sénégal bu ñu duggalaatee Sénégal nag léegi ñëpp dem nañu sur les mêmes pieds man même bi ñu jëmee sur les mêmes pieds information yu ñu jotoon a am gars yi tranché woon nañu ba pare c'est-à-dire que vingt vingt cinq Maroc lañ koy jox joxuñu ko parce que day dafa war a organiser Maroc xelam nekkul ci vingt vingt cinq xelam mu ngi nekk ci organisation coupe du monde loolu tamit moom mooy dégg en deux mille trente en deux hmm. moom ak Portugal ak Espagne ñoom ñoo bëgg a bokk. parce que Maroc six fois mu ngi laaj. balaa li koy firndeel rek mooy keroog bi ñu demee Maroc ñun Maroc mobilisé na deux cent journalistes deux cent journalistes doo ko mobilisé pour organiser Coupe d'Afrique. Mm-hmm. mooy période bi ñuy organiser fii Coupe du monde des mm-hmm. loolu boo koy def ti cherche bi doon opération de charme boo xam ne ci lu ñëwul. Mm-hmm. ça c'est un aspect deuxième bi mooy dafa am CHAN am U17. Algérie moo ko organisé Algérie c'est une grande puissance en dañ ko bëggoon récompenser moo tax ñu bëgg a dellu vingt cinq ñu jox ko Maroc vingt sept ñu jox ko Algérie waaye ci diggante bi dafa am lu ci xew mooy keroog bi kaf organisé assemblée général Maroc non Côte d'Ivoire bi ñu demee foofu doomu Algérie bi nga xam ne moom moo démissionné dafa doon jongante ak doomu Libye Libye tamit dégg rek moo neex yàlla amul football. Mm-hmm. yaa rien marocain yépp dem soutenir defal campagne doomu libi ñu dugal ko. chat essoudé craint le froid tubaab moo ko wax ku ndubin rey sa maam boo gisee lu ñuul nga daw algériens yi dañ doon xalaat ne ñoom bu ñu demee dañuy lajjiwaat une deuxième fois parce que fusil lex tey mu neex la mu nakari la nii la teyee kaaf il y a un président nag qui s'appelle Patrice fi nekk mais la réalité des faits li fi nekk ak ñun journalistes yi lu ñuy gis yëpp mooy fusil moo teyee kaaf teyee kaaf mooy moom am na ñoo xam ne dëkkam fu mu toll la maanaam tey jii il est ministre du budget il est proche du roi dëkkam organiser coupe d'Afrique defoo ko muy dara gis nga fii ay dëkk yu bëri képp ku ñu ne da ngay organiser amoo terrain da lay abal terrain. Mhm. abal la hôtel abal la tout. jël en charge olof yi da nga ne la ku la abal bët. <laughs> moo lay xool fi ngay moo lay wax fi ngay xool. Mhm. donc donc ça c'est un aspect. loolu moo tax man loolu laa jàppoon loolu moo tax. bi ñu nee Algérie retiré na parce que c'est à la veille que l'Algérie si laa xam ne Sénégal effectivement même information yi ñu jotoon ñun fii sax gars yi commencé woon Algériens yi seen wàllu boobu sax il doutait il disait que gars yi dañ bëgg a jël affaire bi. 25 jox ko Maroc 20 27 jox ko Sénégal. Sénégal nag surfé wul ci rumeur boobu man pour man dañ si waroon surfé dem naa sax ba ne pour man je n'ai même pas compris pourquoi Sénégal di envoyé Abdoul Karim Fofana. c'est un grand tribun. un grand communicant dëgg la. waaye xamul football la preuve tey man bi ma ko dégloo ci point de vue il connaissait pas ce que signifie la CECAFA. Mm-hmm. il avait du mal à prononcer CECAFA. or CAF ku koy wax tey ñoom ñoo répartir ñi voté CAF ak kii voté FIFA. Mm-hmm. Sayer Seck moo doon voté FIFA jusqu'à une période récente xaw ma nag ndax changé nañ si diggante bi Abdoulaye Sow moo doon voté CAF Ablaye est très connu au niveau de la CAF c'est politique. il maîtrisait bien les choses j'ai pas compris pourquoi l'État a porté son choix sur Abdou Karim Fofana ou à l'avance ñoom il se disait que c'est perdu parce que pour man Ablaye quand même la personne la mieux indiquée mmh. on parle de football il est dans le football on parle de la CAF c'est lui qui vote pour le compte du Sénégal au niveau de la CAF et les gens qui sont au niveau de la CAF connaissent mieux Abdoulaye Sow que Abdou Karim Fofana ou bien tous les deux pour man d'abord jàngat boobu man foofu laa ko teg maintenant par rapport à li nga wax question bu am solo nga def nga wax gis nga nit ñi nañu wax de dëgg kaaf lu muy dawalee nii day favoriser lu ñuy woowee corruption man mënuma comprendre au vingt et unième siècle kaaf vingt trois membres yi ñooy dajee di désigner kan mooy organiser coupe d'Afrique FIFA jusqu'à une période récente ba FIFA Gate c'était les membres du comité exécutif nous sommes des journalistes l'attribution de la coupe du monde en Allemagne en 2026 Charlie Dimsey loo xam jóguy si parce que cette Blatter dafa neewoon soo leen tollee onze Maroc euh, Allemagne bu amee onze Afrique du Sud am 11 man ma voix elle est prépondérante. Ouais. je vais voter pour l'Afrique du Sud parce que lui il voulait que Nelson Mandela de son vivant ku jox coupe du monde. loolu moo indi woon loolu. mais ils ont compris que lii c'est un système de corruption.